de trouver des solutions je, je mais tout le temps dans la menace les gens dañuy dañuy ragal. je suis d' avec toi mais moi, pas encore entendu de menace. xam li ma dégg mooy parle de la presse. li ma dégg di euh, assez lourd en ce venant euh, un chef d' entreprise je parle même de la presse. Mm -hmm. que ça soit dans la presse ou dans ou ailleurs un chef d' doit payer des obligations d' impôt à l' et ne le fait pas. et ne le fait pas sciemment kooku on ne peut pas c'est pas tout le monde yow certainement defuloo loolu keneen ak keneen defuñu ko mais quand quelqu'un fait la délinquance financière dañ ko war a wax ne délinquance financière la il faut ñu mais li ma bëgg wax mooy da di soog a ñëw xëy na am na nu ngeen war a taxawee ba nit ñi après nag ñu doog ci li nga xam mooy yoon benn ñaar aussi le climat n'est pas favorable ces dernières années yéen sax guerre Ukraine kii bi ñu ngi koy wax yooyu yëpp maanaam mbir la yoo xam ne bu échappé wul euh, maanaam bu fekkee même le gouvernement échappé wu ci rawatina na secteurs fragiles comme comme comme la presse. non mais quel que soit ñàkk échappé bi quel que soit nu mu duré. il mhm. s'agit pas de contrevenir aux lois. le, le euh, Sénégal c'est une manière de le dire. Sénégal euh, Sénégal li ñu xam. Mhm. te tënk ko ci ay loi mooy soo yoree entreprise da nga war di fay impôt donc les journalistes les chefs d'entreprise dans le dans, dans le domaine de la presse. doivent également s'acquitter de cette obligation là mhm. bu ñu ko defee kenn du leen wooyee délinquant les autres qui préfèrent euh, prendre l'impôt de leurs agents mhm. ñi ñuy ñu ñi leen di liggéeyal di ko dugal ci seen poche waaw loolu moom teguñu ko fenn eh, teguñu ko fenn <laughs> voilà ouais. donc loolu ak leneen ak leneen loo xam ne dafiy am ci monde la presse bi on a décidé d'assainir mm mais c'est en deux mois qu'on doit manifester qu'on a décidé qu'on mm le faire